faut ñu wax ci mbirum corruption bi il faut que ñu revenir ci lu tax report bi am. ok report de l'élection dafa am non dama ne report dafa am Mamadou Awa mu am ñi gaañoo Sénégal delluwaat amaan recul recul. démocratique démocratique pendant vingt ans. Mhm. ci biir loolu mu jaxasoo ñu indi fi loi d'amnistie ci biir loolu dil am ci euh, le le truc de Cap Manuel am ci biir loolu lépp luy xew xew fi. pour man jàpp naa ne te lu ko waral mooy dañoo jiiñ ay juge mhm. ne leen dañ leen corrompre ay borom kër ay ñoo xamante ils ont fait trente ans plus de mm. quarante ans dans la magistrature des hommes respectés comme un Cheikh Tidiane Koulibaly mais loolu bu amee ñi fabriqué ay audio ne Amadou Ba mm-hmm. mais loolu bu amee ba ba Cheikh ci Cheikh Ndiaye porte plainte ba ba information judiciaire juddu ci. ba ñu reporté élection yi ñu reporté élection yi man dama jàpp ne d' abord jub jubbal ci boobu Bassirou Diomaye Faye ñu koy xaar. waxuma dossier mille milliards yi. Mhm. mais ce dossier de corruption. des juges tey mhm. boo xamante ne tey waa PDS ñoo ko yëkkati. amaana Amadou Ba tey man je sais je discute avec lui bu amoon possibilité porte plainte benn nit da koy porte plainte mais comme ce sont des députés yoo xam ne dañoo jóg te tamit nanguñ ko cité nommément ci ci dañoo wax. Mhm. mais nanguñ ko cité ci bu ñu def loi bi au niveau de l'Assemblée bu ñuy def proposition loi bi accusation bi mais tey moom il il se change